94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yoo xam leen ko defal saa su nekk ci réew na leen siyaar na leen bay leen di topp Fall 94 Walf Sénégal tey coow lan la coowul internet bi coupé internet bi nga xam ne moo di TikTok nga xam ni Sénégalais yi bëgg nañ ko lool daanaka mën naa ne ñu baree bari seen business foofu lañ koy jaarale yàqal na nag yàqal nañ leen lu baree baree baree baree bari ñi nga xam ay tiktokers lañ tiktoku Sénégal dañ koo coupé tey jii nga xam ne maanaam mett na lool ci ñenn ñi ba léegi rek nit ñaa ngi woy di ñaxtu ak di jàmbat saa su nekk rek ni réew mi doxee ci internet bi ñuy coupé ak réseau yi nga xam ne nii xale yeeg ñëpp ci la ñu nekk mu nekk loo xam ne nii parce que ñu baree bari information dañ koy soxla adduna bi moo toll foofu jamono bee toll foofu bu ndee ni coupé nañ internet bi coupé lii di tiktok bi nekk na loo xam ne lu dooy waar la fii ci Sénégal Sénégal daal mi ngi noonu rek wax dëgg yàlla ñu baree baree baree bari daal dafa dañoo am déception ci seen réew mi voilà li ko waral na ku nekk xam na ko Ousmane Sonko yaakaar naa ne bu ñëpp nekkoon ci loo xam ne lii ak bennoo la yaakaar naa ne danañ wax laneen lu doon coupé ay internet di coupé ay ay ay ay loolu nag wax dëgg dafa suufe lool ci Sénégal suufe na lool waa ji loolu day dellool ginnaaw am réew ak àdduna fi mu toll ak fi ñu toll lan moo ko waral coow lu doon coow rek waaw tëj nañ Ousmane Sonko tëj Ousmane Sonko buñ ko tëjee dafa am ñu topp ci ginnaaw ñooñu buñ ko tëjee moom képp lañ gëm fawu nag ñu manifesté wu mënu mënu leen ci dara day metti ndax lii problème bi mooy maanaam seen leader la moom lañ gëm te wax dëgg dafa yees ci ñoom te lu bees la ñoom doon nañu wax naan kenn du ko laal kenn du ko tëj ku ko laal xam nga liñ daan wax tey nag caabi féetu ko ginnaaw duñu mën a toog di muñ am na ñoo xam ne danañ mën a toog di muñ waaye am na ñoo xam munu ñoo toog di muñ loolay problème bi kon nag yaakaar naa ne li gën li gën li gën ci réew mi chaque jour bis bu yàlla sàkk war nañ ko mën a xam bu baax a baax ñu def loola ñu dem suñu yoon parce que loolu moom la ñëpp soxla tey nag wax dëgg yàlla ñu bari jaaxle nañ Sénégal yi ndax ñu bari dañ doon liggéey ci internet bi foofu la adduna bi toll ñu bari dañ liggéey ci réseau bii di réseau TikTok ñu coupé ko kan nag nekk na ne maanaam nekk na loo xam ne doy waar la ñu bari nag mer nañ lool dañoo mer ba fut boo defee micro territoire da nga xam ne ñii wax dëgg yàlla seen réew amatuñ ci benn yaakaar gën nañoo ñàkkate yaakaar ci ci réew mi bu ndee demee ba nit coupé nañ internet bi coupé nañ lii di réseau TikTok bi ah loolu moom nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla moom suufe na lool ci Sénégal ñu baree baree bari wax dëgg yàlla am nañ lu leen metti lool bu ngeen ko yëgee bu ngeen ko yëgul lool xam leen ko Kan Fall 94 Walf Sénégal lii lay indil.